الحمد لله الذي الحمد ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyai wa imami almursalin sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina wa qudwatina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi déglu Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaar di leen baalu àq baax delluwaat di amaan mbégte mu rëy ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di euh, jotaayu alxuraan bi nga xam ne moom lañ tuddee atadabbur ñu ciy waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di ci ànd ak yéen di ju jot ci waxtu wi di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax euh, di nuyu ñi nga xam ne ñi ñuy topp lépp ñi nekk ci biir réew mi ñi nekk bitim réew amaan naa mbégte ci feggoowaat ak euh, suñu xarit saaxibul quran imaam Aboubacar Traoré yaa imaam maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoonte ak ñi ñuy seetaan Euh, sëñ Mbacke maa ngi lay euh, nuyu manit di la ziyaare bu baax di bëgg bu baax ci yow mhm. ci euh, activité yeeg xarakaat yi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu daawa ci wàllu lislaam ci taxawaay bu baax a baax mhm. kon gannaaw bi ñu santee suñu borom di julli ci suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam eh, di la ziyaare noonu mhm. di la wax ne sanse <laughs> nga aussi macha allah waaw tabaarikalla waaw rafet na de c'est yow moom dama foo dama war a ñëw nga formé ma di ma ah jàngal sant sanse imam yokk yokk al amin dama foogoon naa al amin moo dàq sanse ñëpp mais yow yaa mën al amin moom macha allah Lamine ndeke da doon sóob rek. man su ah. ma ñaari ñaari nuróowut laa boole di. mais moo tax mu mu mu génnee macha bi quoi macha allah. bu ñu ah. waxee sant nga nag damay kontaan. waaw ah, dafa baax nag sant daa damay am envie dund daal. waaw xam nga ñoo mën waaw. xam nga access media ah, yaa ko doon def RTS waaw jamono yooyu ah, jamono yooyu moom daan naa sañse moom oh, ba léegi nag yaa ngi sañse nag xam nga sañse bi may xaar dëgg-dëgg waaw dama ko wax sëñ Abdou Mbacke barki démb hmm. bu baax macha allah suñu sëriñ wallaay ndeysaan moom daanaka rek tubaarkàlla ma <laughs> eh. def sëñ nag fan yi sama xaalis bi may xaar bu ñëwee waaw am na sañse yu rëy yu ne sama bopp yu ma war a réaliser <laughs> ma ne ko sama bëñ bii benn bi daa bënn benn bi dama koo dindi. Hmm. xam naa bu sama xaalis bi ñëwee li may njëkk def mooy dem Turquie mu ne ma léegi xaalis bi xaalisu lan la. moom kii bi waaw waaw jot naa laaj de man maa dafa am xaalis boo xam ne maa ngi koy xaar sama hmm. bu ñëwee. bu ñëwee nga dem kii Turquie. yow sax yaakaar naa dinaa la ci jox wala yow sama si day ah, ñëw kooku moom <laughs> ah, sama <laughs> na ma <laughs> de ndeysaan ma ko sama yaay léeg ma ne ko non mère may xaar bu ñëwee mm-hmm. daal ko ci wax ay affaire xaw ma ngeen dañoo baax dañoo baax ndeysaan ñoom boo ko mm-hmm. ñoom duñ duñ détaillé waaw dana ñëw jàmm de waaw da dëgg de yàlla na ñëw jàmm daal tey pare na ñëw ak jàmm yàlla na ñëw jàmm macha allah boobaa nag danaa sañse waaw ndax tey jii sant si mbir yi la bokk waaw tey jii day nuru mm. sañse waaye waaye caméra yi rek la waaye yoo xam nga ne ah non sañse la ah non kii kay moom la moom macha allah waaw ah, ma ñëw eh, maa lay xoolaat bu baax kay mu ne waa sëñ bi moom fu mu hmm. fëlee tey moom yéeme na de yéeme na de ah. <laughs> dinaa la jox sama photo nga publier ko ba xam lu lay wax incha allah statut laa koy def kay nga def ko statut waaw bu ko defee bind ci suuf hmm. li nga li nga ciy bind incha allah bu ko nag bu dee góor moo la wax ne la photo bi rafet na. waaw waaw ko merci. waaw bu dee bu dee soxna nag jigéen ma bàyyi nga tontu sa bopp. waaw ki mu doon <laughs> am na ñu doon ñoom Aminata Mbuuba. ñoom ay Fatou Diallo nga leen a wax merci nga tontul ma leen. <laughs> waa kii nag waa un sportif club. waaw ñooñu itam ñooñu samay gars yi boo leen waxee merci man nañ maa naq ci ndox mi baal ma waxal leen sama bopp merci. <laughs> nga dëgg de. macha allah macha allah. xam nga daara moom daa am daa am neex neexam. daa am ay neex neexam daa am neex neexam. alxuraan alxuraan sax nii lay kiiwee da ngay jékki-jékki mu divertir la. dëgg la génne la ci yóbbu la feneen. dëgg la nit ñi fu mu toll ni sëñ Mbàkke. dañoo stressé. dëgg la waaw kuy kuy wax ak ñoom ci diin ak ci lu mun a doon. Mhm. boo sérieux trop. ndeysaan boo moytu message bi du jàll. waaw ah, il faut que ñu wàcce stress yi tuuti. dëgg la et puis changer kii tuuti waaw waaw. moom daal am na solo waaw raw yi xuqulu ba comme saa lan yonent bi ko wax. waaw féexal leen seen xol yi. waaw yéen moom waaw ngeen xaw a féexal xol yi. waaw <laughs> mais na ñoo xam ne ñoo jàpp ne imaam nag dina ji amul <laughs> ka bëri ko ba mu dëgër. ñu ah, ñu woo sax am na ñu nanguute ñëw looloo tax. loolu mooy problème bi <laughs> xam nga ki ki dem ba ne ne wa tabassumuka fii wajhi axika sadaqa ah non kooku daa bëgg ñuy bëgg yéen a mën a jàngale daa bëgg ñuy bëgg ñuy bëgg ñuy ree ñu ma dajeeg sëñ Mbàkke muñ ree rek yeneen tamit loolu sarax la tiyaaba la allahu akbar xam nga woykat boobu oh. woykat boobu doon laaj ndax xol naan ndax xol yaa ngi féex defe naa la ko waxee waaw <laughs> loolu la wax ndax ndax xol yaa ngi féex ah? waaw yu mel noonu daal ndax xol yaa ngi féex wala mm. yaa ngi féex mm-hmm. looloo gën a jub baa yaa ngi féex waaw euh, laaj boobu mm-hmm. laaj bu am solo la bu am solo la xol yi dañoo war a féex war ah. a féex waaw allahu akbar lu nit am mu neex la wa tatma innu qulubuhum bi la gis nga imaam koo xam ne li nit ñi am mhm. ci xéewal boo ko yëgee mu neex la sa xol tàmbulee féex koo xam ne bu nit amee te xamal ne feebaroo aussi xam ne feebaroo koo xam ne bu nit nekkee ci ay jafe-jafe <laughs> waaw nga yëg ne lu metti la nga mhm. ñaanal ko mu dañ mhm. yëgal ne feebaroo waaye feebaru xol ba tax xol yi du féex waaw mooy koo xam ne jàmmi nit ñi dalay déranger dalay déranger sa oh. dund nar naa naqari ndax nit ñi dalañ am jàmm bañ a am jàmm mënoo ci dara. Ah. nit yow ngay nit ñi ne la kii 3 euh, millions kii euh, kii CFA. mooy dugg ci compte am seconde bu ne. laa ilaaha illallah te loolu te teewul yaa ngi dund. mooy Bill Gates am na ay jamono lool lool loolu lañ doon waaw fi mu man te man xaw ma ko yoo xamoo. sama yoon teewul teewul sànq nii bi ma ñëwee. te xaw a xiif. waaw dama ne Pape Doudou 200 laa ko jox ne ko fexeel ma ndékki. Ah, mu jëndal ma pain diw sokolaa ci côté bi. waaw yow nga ndékki ba suur ma dóor fi mu ne maa koy wax nii. mais ku ma gis ma toog ne soggu. Mm-hmm. day jàpp ne dañ ma koo dereeseel. waaw <laughs> waaw uyal problème amul problème yow dundal rek. dundal rek ah. ki naan sombi mm. ak ki lekk ganaar. Mm. ak ki lekk méchoui. Mm. kenn mënu leen xàmme dëgg la waaw li am solo moom. moom am na sutura boobu moom. dundal kon jeex na gaa yi kon na xol yi <laughs> féex. na xol yi féex rawatina nag yéen waa ahlul quran. waaw waa ahlul quran moom. waaw naayif ko waruñu estere laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun. wallaay aljanna fii lañ cee tàmbalee. waaw man daal loolu nit ëppalee ci àdduna. Mhm. boo ñaanal yàlla dugg aljanna. boo duggee oh. aljana dara dootul la oh. foofu la ñuy njëkkante wa nazaana ma fi qulubihim min ghil gis hmm. <laughs> <laughs> daa découragé woon nag ci àdduna ak tëralinam eh, waaw déet waay xam nga léeg yu metti waaw dëgg la koy wax mhm. mhm. mooy waxtaanal waxtaan wu xóot ci man ndax damaa dem ci barab mhm. mu ñëw fa toog ma fekk ko mu yor bagage fi ñuy ambulant ay ticket ak ay fëgg jaay ñàkkatooy xëpp ma ne ko da jaay mu ne waaw ma ko boo yàggee ci kilim bi doo gont de tey ngaa jóg ndax place moo ko fekk daa am kilim <laughs> ma ne ko ñun ba ñu nekk ci tool yi ñu ñuy bayloo mhm. buñ la santee dara mhm. buñ la santaatee dara dañ naan la gaawal def ko yow it da ngay gaaw def ko balaa saw ñaq fendi ndax boo toogee ba sedd mhm. da ngay taayee jóg dëgg la ci biir waxtaan ma ne ko baa nekkoon ak di dajale fas yéene boo amee quatre cent mille rek paas ko ci gaal yi wala mu ne ma mu ne ma mu ne ma waaw bëggumaa dugg gaal yi waaye su ma amoon quatre ci ci ci maanaam ci tomb bu fermé wu laa ilaha illallah waaw ba ma koy wax nag laa ko wax ne ko mhm. lu am solo la waaye nag lu mat teey la mhm. ma ko gaal yi bu doon jamono ji ñi ëpp ci ñuy dem dañuy àgg mhm. bu nit dem naan mën naa dem mën naa am ma àgg dëgg la waaye jamono ji ñi ëpp ci ñuy dem àgguñu ñi ëpp ci ñuy dem gaal yi dañoo faatu ci yoon wi ñenn ñaa nga Mauritanie ñenn ñaa nga Maroc ñenn ñi dëpp leen Algérie ca defer ba ma ne mbir bu tollee foofu léegi eh, ak lu jàpp ne jàpp ne métti na da ngaa war a toog li tax ma lay wax li ne ko man mii di wax ak yow mhm. man Oustaz Mbacké Sylla mi nga yaakaar ni lépp fine mu cool mhm. ba nga ñëw di wax ak man mhm. mille 2006 2007 fanaan naa ci néeg maa samay xarit ñuy réunion ba bët set ci nan la def pour dugg ci gaal yi ta waaw ndax ndax ndax ndax ndax jamono ju melut tubarkàlla na ni mu war a mel nga xamante ne dañoo toog di discuter di waxtaan di waxtaan ba déggoo waxtaan ak ki ñu war a yóbbu ba tënk ak moom ak fay ma ne ko du man man moom ba léegi sax ab góorgóorlu laa boo xam ne bu dul woon ak euh, émission yi man na maa dugg ci gaal yi dem mhm, waaye ña ma doon waxtaanandool mhm. ma ne ko amu ci kenn ku dugg ci gaal yi waaye nag ñoom ñëpp kenn ku nekk yàlla defal na la tawféex yàlla leen jikk te barkeel ko amiin ba nga xamante ne nii weesu nañ étape bañ nekkoon mhm. ma wax sama rakk jooju ne ko àdduna dafa mel ne saxaar am na nooy door a duggee léeg-léeg doo am place. dëgg la man ngaa sax ne ci buntu bi ñu naan la jàppal. dëgg la saxaar mooy train. waa train wala biis Dakar wala biis wala métro. Mhm. ma ne ko waaye bu yàggee daw. di mhm. taxaw ci arrêt. Mhm. da ngay dem ba mu yàgg yow mi nekkoon ci cat li nga ne ci digg bi. da ngay dem mu yàgg nga am place. am place dëgg la mais loolu da ngay patienté. Ah. Euh, parce que arrêt bu mu àgg day am ñu wàcc am ñu ah, yëg. yow sa tuur a ñëwagul. waaye mi ngi tourné. kuy dund da ngay rafet njort ne sa tuur dana ñëw benn bés imam. Ah, te loolu mooy dëgg. waaw da ngay fàttali bu ma den nekk Dubaay dama doon seeti suñu benn euh, xarit Assane ja mhm. ak soxnaam mhm. euh, soxna Siga Siga Dia mais soo jógee euh, boo jëlee Baniyas station bu tudd Baniyas boo fa jëlee métro bi jëm ci al al Fourdiane mhm. dafa sori trop mais booy dogg dugg ci métro bi non da ngay taxaw a taxaw a taxaw mais daa am bu fa àggee. waaw métro bi day vide. bu la boobaa da ngay toog bu la neexee nga tëdd. waaw mooy li ngay wax rek. mais loolu àdduna nag. noonu la noonu la àdduna koy daw rek la yow da ngay door a yéeg. nga yéeg ne faax yombut. yàkkam nit toog waaw dem dem dem ami jafe-jafe ba jóg ba jóg wallaay dëgg li gën nag mooy tàmbalee ci coono yi toog te dootoo jóg looloo gën amiin waay looloo gën kon nag euh, lu am solo la euh, dama si jaar la benn message Euh, dimanche bi ñu génn nii xam nga si lañu def traversé Dakar Gorée. ci ci bi. ci naa Dakar ba Gorée. macha allah alhamdulilah. <laughs> def naa ko mooy de deux heures de temps. non di ci di ci remercier sama coach yi bu baax ñoom ah, Ousmane Fall ak ñoom Prési ak ñëpp ñoom Aba ah. ak ñëpp tout ak club bi yëpp macha allah. c'est la première fois ma def ko. waaw musuma xalaat ne dinaa ko def. waaw ma naan dégg bi ngay àgg ma àggee dama toog tuuti ma ne man dama am envie delluwaat si ndox mi. ndeysaan waaw alhamdulilah. Dakar Gorée. <laughs> Dakar ba Gorée. xam nga loolu moom yombul. loolu yombul mais sant yàlla mais message bi mooy. bi ñu kiiyee ba pare dañoo gis ñu def benn genre euh, pancarte xam nga noonu lañ koy waxee. noonu la kii waaw kii bu gudd. yu morceau yi nan la tuddati sax affiche. bu mag a mag sax. Mhm. ñu bind ci xaw ma mbuur xaw ma lan am na lu ñu ko bindee mais mhm. juste ñi ngi wax gune yi nga xam dañuy dugg ci ndox mi. Mhm. pour dem ut. Europe ku mel noonu danger bi ci nekk. Mhm. ñun bi ñu jógee ci noonu malgré mën nañ fay def nañ traversé bi mais ñaata waxtu nga nekk ci ndox moo xam ne. Mhm. mooy de kii bu la nit ñëwul secours nga dee. billaahi mais nga imaginer diggante boobu diggante Val door ak Gorée. boo duggee si da nga dem benn moment boo xam dootoo gis dara. dëgg ndox rek te foofu du dara. par rapport ak océan bu mag bi. donc message boobu dafa am solo. moom laay jàllale mooy ndaw ñi mooy li ñu doon wax léegi. nañu góorgóorlu ñu muñ ñu toog te gis nga sa wërsëg boo ko wekkee ci système wala si nit wala ci dara rek da ngay juum mhm. sa wërsëg da nga koy wekk ci yàlla waaye góorgóorlu góorgóorlu góor ci li nga war nekk ci tôt ou tard mhm. tôt ou tard mhm. dina la fekk tôt ou tard di la waaw loolu loolu loolu Occident loolu rek lañ ñu rawee du leneen wàkkilu ci yàlla te góorgóorlu te góorgóorlu rek Oustaz Alioune Sall bi mën a jàngale mi ngi koy wax sax nga teew ne jom taxawaay ak jom jom baat yooyu ni ma neexee ah a tax ma déet waaye daal taxawaay yooyu neex na ma trop yow kenn ëpp la jom waaw taxawaay yooyu daal man dama lay xool yërëm la yàlla xam na ko soo amul woon jom doo àgg fi nga àgg tey jii ni coow na yi ngay daj ku am jom rek moo ko mën yàlla xam na ko macha allah yàlla na yokku amiin ñu bokk ko ñu bàyyi nga tooyal xol yi ci alquraanul karim ñu tàmbali waxtaan bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله أكبر صدق الله العظيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ما شاء الله imaam jërëjëf donc tey lu ñuy jàngat tey ñu ngi war a tàmmale ci wa maa allamnaahu shi'r wa maa allamnaahu shi'r wa maa yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubiin yàllaa ngi wane dayob alxuraan ak wallaay ndeysaan ak wone ki mu yónni ay mhm. waxam ak soloom ndeysaan di wane ne yonent bi du taaxuraan kat yonent bi du woykat du xawaare <laughs> waaw waaye li muy wax mag dee <laughs> mag dee de eh, loo ñu indil ci aaya jooju <laughs> eh, suñu boroom ne hmm. wa maa allamnaahu shi'ra ndeysaan eh, yonent bi yàlla ko yónni si jamono joo xam ne ak ci espace boo xam ne hmm. ñi fa nekkoon dafa am lu ñu doon euh, puukaroo mooy. waaw ku mën ku dàq wax. Mm-hmm. ku ku gën a mën a formuler ay baat yéeme. Mm-hmm. ku dàq wëy ku dàq nu mu turee sax euh, wax wax bu gën a mën a jommal doomu mm-hmm. aadama. ku gën a saf làmmiñ. ku ëpp éloquence. waaw muy Quraysh jamono jooju nga xam ne arab langue la boo xam ne bu riche ay millions et millions de vocabulaire la. dëgg la dëgg la léegi nag ci occas lañ daan daje nag. gars yi organiser. waaw <laughs> organiser ay lang kenn ku ne di jommal sa morom ci wax ku ne di jommal sa morom ci wax dégg naa ni daan wax wax ju rafet ñu jël ko wékk ko ca kaaba ga waaw waaw al mu àllaqaat waaw wékk ko <laughs> nit ñi di ko xool ndax wax ju yéeme ndax wax bi yéeme ci jamono jooju la yàlla cop cop de coppit yeneen bi jël ko seen biir jox ko alquran ñoom ñëpp ñu jommi ñu jaaxle mais non attends ñu ne non kii woykat la mhm. ñu comparé ko woy ñu ne non lii mënut a nekk woy waaw logiquement ak ci wàllu étude ñu xool ñu ne non kii non ñu ne ah non kon njabarkat la. Mhm. ñu ne non euh, am na ku koy dee mais ab jinne la. in huwa illa dikrun lil alamin yàlla ne mhm. non mhm. waaw mu ne mukk wa maa allamnaahu shi'ra man jàngalu ma ko ash-shi'r muy wëy parce que wëykat dafa am nu muy men dafa am ay ay comportement am dafa am ay ay eh, nu mu tuddee ay doxalinam dafa am wëykat soo ko xoolee da ngay gis ne kii dëgg wëykat la li muy wax si woy la yam dina dem ci santiment mi dafa am fu mu yem mhm. du dugg ci xol mhm. du dundal xel mhm. mais kii la muy wax dafay dugg ci xol dundal ko dundal ruux dundal xel moo tax mu ne wa maa allamnaahu shi'ra parce que shuara yi moom dafa am nu ñu men mooy lan mhm. boo dem ci suratu shuara suñu boom lan la wax mhm. wa shuaraau yattabiuhumul gaawun nee na woykat yi waaw artistes yi taaxuraankat yi waaw ñu bew ñi ñi mhm. xamul fañ jëm ñoo ñoo leen di topp ñoo leen di topp waaw alam tara annahum fi kulli waadin yahimun yàlla nee na xanaa gisoo leen ñoom xur wu ne mën nañ faa fanaan xur bu ne waaw dansin bu ne <laughs> garam place bu ne mën nañ faa fanaan ndax dañoo woye di <laughs> wa annahum yaquluuna ma la yafaaluun tey dañoo doon ñoo xam ne li ñuy wax du bokk ak li ñuy def li ñuy amuñu kàddu amuñu kàddu mhm. parce que la woy boo ko mhm. dégloo mun na am mhm. solo si leçon morale de vie nangam mais ñoom duñ ko def allahu akbar yaquluuna maa laa yafaluun yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam parce jàll ak wax ci nitee yooyu mm-hmm. léeg-léeg nga xool ko muy def yëf nitoo di ko yoo xam ne danga naan xanaa du kii moo a doon jox message waaw mais su solom rek waaw bu dee jigéen buy wëy waaw wala góor buy wëy nga gis mu takk kii jaaro muy góor def yaramu neen def ay tatouage kii bopp bi ba pare naan woy ak am solo day maanaam parole yii la <laughs> yeneen bi nag mu ne yàlla ne menul noonu nag mm-hmm. kon kii du shaa'ir wa maa huwa bi shaa'ir wa maa huwa bi shaa'ir yàlla koy tontu waaw ah, ko moom du seen waay du woykat c'est-à-dire ñoom mm-hmm. imaam li nga wax lu ci am solo mooy ab yonent buy ñëw mm-hmm. fa jamono toll lañu yaakaar ne loolu la ñëpp man ci lay ñëw ba noppi jommal leen ci jommal leen ci def ca loo xam ne nit mënu ko allahu akbar yàlla sampal leen dënd mi mm-hmm. ne leen yéen yàgg ngeen a wax man ngeen a wax bu dee alxuraan da ngeen a jàpp ne ay création waaw créé leen créé leen dem leen ngeen tëju ngeen créé indi teg ci pénc li xool ne du ngeen ko def mukk suñu borom ne dañ ci hmm? suratul baqara ci hmm. aaya numéro 23. waaw suñu borom ne. Euh, si aaya ban aaya la te ben 23 bi ci boppam. waaw mhm. wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina mhm. fa'tu bi suratin min mithli hmm. wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin mooy ay numéro 23 bu ngeen nekkee waaw fikki sàkka a dute mhm. ci li nga xam ne man yàlla mhm. xoolal maa ko wàccee ci sama jaam léegi léegi yéen indi leen mhm. wenn saar wu mel ne moom waxuma leen ngeen indi cent quatorze saar <laughs> téeméer fukk ak ñeent waxuma leen waaye tànn leen wi gën a saar bu leen indi inaatay naakal kawsara mi gën a gàtt waaw indi leen wenn saar wu mel ne alxuraan allahu akbar waxuma yow imaam Abubakar wala ngañ wala Demba indi ko mhm. waaye nag dem leen ngeen dajee mhm. ngeen booloo yéen ñëpp ah. ngeen dimbalante mm. indi ko allahu waaw fa in lam tafalu walan tafalu kon nag mooy fattaqu nnaara allati waquuduha annaasu walxijaara uiddat lilkafirin allahu akbar imaam wamaa allamnaahu shi'ra ah. wamaa yanbaxi la waaw yel waaw yel yel yelloowul loolu yéen salaa sallam kenn du ko xool naan kii ab shaa'ir la allahu akbar ah ak ak taaram ba ci jikko ba ci doxalin ba mu nekk as-saadiqu al amin waxam musta woor ak jëfam nga xool ko naan kii shaa'ir la subhaana wa maa yanbaxi lahu laa ilaaha illallah te xool leen ko afalam yaddabbarul qawla mhm. lam la ñuy wax xool leen ko ngeen settantal ko mooy li mhm. ñuy def ni tadabbur mhm. ngeen settal di ngeen xam ne lii in huwa illa dikrun lil alamin kon wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaxi lahu in huwa illa dikrun ab fàttali la Euh, wa qur'aanun mubiin ab alquran boo xam bu leer nañ la wa laqad anzalna ilayka ayatin bayinat laqad anzalna ilayka ayatin mubayinat allahu akbar maa wàcce ci yow alquran mu nekk ay ayat <coughs> yu leer nañ mubayinat yu leer nañ baax na ko nu ne fii tey qur'an waaye mubiin mubiin bu leer nañ bu biir waaw explicite waaw amut amut lu ngeen ci corriger waxuma ngeen indi ko waaye mënu leen koo lire sax di corriger di alxuraan mooy téere boo xam ne nit ko lire ci génnee ay faute <laughs> damay wax ne ak wax bi borom bi muy wax alxuraan <laughs> mhm. boo waxee say wax bu subaa nga defaraat ko man may damay wax wala may bind ay discours yu mhm. demee noonu léeg-léeg nga def ko liiraat ko soppiwaat soppiwaat waaw man nga ne boo ko defoon léegi dem mhm. ci naan ndox ñëwaat boo lii raatee leneen nga defaraat <laughs> suñu émission yi boo koy dégluwaat. waaw nga ne baat bi bu bu su ma yëgoon. Mm. waxee woon ko nii waxee woon ko nii dëgg la defee woon ko nii parce moo matadi. Mm-hmm. ak matadeem day feeñ ci lépp lu muy def. wala eh. sax ñit woo la ne soo ko waxee woon nii wala ah. nii wala boo si dolli woon lii wala naa parce que matadi doomu aadama a feeñ moo tax doomu aadama wër mënta def lu mat abadan mënta def lu mat déedéet moom la wooykat ba ne woon nit ku dul juum amut amut def lu mat parce que dañ ko bind naturellement mu matadi <laughs> kullu bani aadama xataa'un waaw kay léegi nag ki gën ci mm-hmm. matadikat yooyu mm-hmm. mooy ki nga xam ne li muy matadi mm-hmm. mi ngi koy jéem a rectifier boo xam ne wa xayrul xataa'ina at-tawwaabuun waaw mooy kuy nangoo dellu ginnaaw di defaraat faute yi muy def lu mu yëg nañ juum te defaraat comme du parfait waaw euh, mën mënta fexe ba mu parfait lu parfait ah. moom la maanaam ñun dañoo manqué euh, ba pare bëgg mat waaw léegi nag suñu manqué manqué yooyu dañuy xeex ak moom ba keroog ñuy génn àddina te du jeex dëgg la waaye yàlla buggul ñu rester rek imparfait ñu ne noonu dañoo imparfait léegi nañ resté dañuy jéem vers di dem vers la perfection mm-hmm. loolu nag foofu la ñu rawantee la waaw comme dañoo manqué ñu <laughs> bind li ñuy matal mooy di ku la gën a góorgóorlu. waaw raw la. raw waaye moom sax taxagul mu mat waaw man jadda rek wajada rek xam nga insaanul kaamil <laughs> mhm. dañuy wax ne bu doon am mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te gis nga alxuraan léeg-léeg mu ñëw mel ne ku koy yedd waaw mu nga waaw léeg-léeg yàlla ñëw ne ko bul def nangam waaw defal nangam yàlla waxal nangam waaw yàlla tat xaw waaw wala abasa wata wala <laughs> wala wala wala wala boo demee ci suratul kahfi moo ngoog wala taadu aynaka anhum wala turidu zinata alxayati dunya wala tuti man aqfalna qalbahu an dikrina wa taba awahu wa kana amruhu furuta wala wala wala yooyu boo demee dégloo suñu suñu suñu sëriñ oustaz euh, kii euh, Ibrahima Khalil loo mu naan ni wala boo gis la mu ne bic rouge la yàllaa ngi rëdd bic rouge la kat ki mu koy waxal <laughs> mooy sallallahu alayhi wa ci ñun la ñu royloo laa ilaha illallah mu ko bu fi def nangam nangam bu ko bu la ko dara jaral ay boo fi defee nangam ay boo fi defee nangam laa ilaha illallah dafa yéeme kon lii leer na nañ mhm. kon objectif bi lan la mu ne li yunzira mhm. mhm. man kaana xayyan ak ki dund xayyal bi maanaa ba ñuy wax al al al aqlu wal qalbu foofu la xam nga nit dina dina dina dina taataan benn mbir maanaam dina ko settantal ba xam ne lii lu wér la mais xolom du ko nangu dëgg la waaye bu ko taataanee maanaam mu kii ko mu mu settantal ko xolam nangu ko loolu beneen étape la kon moo tax mu ne li yundira man kaana xayyan ay xalyal xayyal qalb boo xam ne xol ma dund na waaw Occident tubaab yi nii am nañu xel waxu yàlla ji jàngat nañ ko xam nañ ne dëgg la mais seen xol yee ko nanguwul seen ruux yee ko nanguwul dëgg ñu jaare si nag lu ñu bëgg ci wàllu àddina ñu réaliser ko léegi nag moom kii nangu mooy nangu xol kooku mooy mën a nangu santaane yàlla yi moo tax yàlla di ko wone yaa ayyuha alladina amanu kon li yundira man kaana xayyan ngir mu waaree ci mu waaroo ci ki nga xam ne moom xayyal xol bi xolam dafa dund ruuxam dafa dund wa yaxiqa alqawlu ala alkaafiriin yéeféer yi ko bañ nag ñi xool alquran déglu ko déglu message yeneen ba mu leer leen mm-hmm. ñu ne ko fu ñuqaat dekku ci leneen waaw mm-hmm. ah, nag moom yàlla neen nag sama mbugal nag mi leen mi ngi leen di xaar waaw masha Allah am na solo imaam <laughs> aay jooju rek eh, doy na ko jëlee mm-hmm. ñu jaajëfal la ci bu baax a baax insha Allah bëgg naa ci jotaay ah, la si la ëppee neexal jotaay bi waa kër gi ñi insha Allah insha Allah dina ko dégg soobee yàlla moom nag incha allah sa xarit ah <laughs> wala xaritoon <laughs> naa ak céetam la bëgg ma ruusal ko <laughs> boo moytu euh, gannaaw da ngay tukki boo ñëwee jàmm waaw incha allah bu tuubut ci diggante bi waaw danaa am nu ma def xam naa dina ma neex de wala bëgg nga. ah bëgg naa kay. pare nga fi mu ne. ah waaw waaw. ah gars yi wax leen. ragal ragal ragal moom. ragal ah, léegi mu problème ñi nga ah. xamante ne bëgg ngeen ah. imaam def leen troisième fois. fa in xiftum. waaw boobu. mën nañ man mën nañ maa def mën nañ maa def si ma jox leen ko yow moom <laughs> yow moom fi mu ne troisième ngay wut. man nag moom ab aaw samp ah, kër déet xanaa maa gën a garaawle <laughs> boobu kon boo bàyyi bàyyi ma dëgg bal ba si kanam déet mën naa am fi mu ne am na ñoo xam ne yow la ñu gën a kii dañ naan yi kii saas mii lu tax ñemewu ma loolu toog ak yow ci plateau bi yore mais su ma la ko doo ko xam ah waaw ah, loolu moom am na yi xam nañ ko léegi wax moo tax la koy wax pour ñu xam dañu <laughs> régler problème bi ah. moom kay bu ñu ko ñu xam ne nii la demee <laughs> buñ ma gisee koñ ba ma génn dem ngaa bu mburu jógee ci bitig xam ne nii la demee moo tax heure añ jot. Ah. <laughs> waaw rek yéen a jëndi bool gàddu la demee waaw ñu xam ne maa ngi nii toog <laughs> ñu xam ne maa ngi nii toog waaw léegi moo tax danaa la jox sama photo yi. waaw bu ko defee nga bind ci recherche xuma la nag lan. ma wax la kii bi yónnee ma photo bi bii sant bi euh, hmm. bii moom na ci bokk. ah bii moom waaw ak yeneen ñaar rek bu amee ñett tàggoo balaa faat jàll jàpp suñu nopp bi dëgg de <laughs> salaamaaleykum <laughs> <laughs> jërëjëf mbokk yi ñu doon topp ci Atadabour cant ak ngërëm ñeen leen ba samedi ji di ñëw ci beneen jotaay inshaa allah alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi aghnani wa a'azzani bi tila yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran mooy seen bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna